dal leen ak jàmm mbokku internet yi chaîne football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su def leen vidéo pour ñi nga xamante ne moom bees chaîne maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen si cloche boobu ngeen di vidéo mu dugal ngeen moo ko seetaan bu leen fàttee un vidéo c'est très important mbokk internet yi tey dañuy doxantu fële si Suisse gis naa temps yëpp seen i commentaire ngeen di ma laaj ñaari milieu terrain kenn ki di Andy Diouf euh, keneen ki Diarra nekk foofu si Estrela bu joxoon sax ñaar passe décisif kii di Habib Diallo donc mu nekk deuxième talent yi xamante ne fan yii maa ngi gis eh, gën may laaj mais vidéo bi dama koy jagleel Andy Diouf Andy Diouf nag pour ñu ko xamul France la juddoo mu nekk euh, franco sénégalais xam donc euh, papa mooy sénégalais boo xoolee si taxawaay dem na ba un mètre et quelque quatre-vingt-sept donc am 19 ans nekk xale bu ndaw ren nag moo ko moom ren nag da ko prêté fii di euh, Bâle maintenant sax tey jii comme information mën nañ leen xamal ni euh, prêt bi ñu pare nañ pour jënd ko option d'achat ndax saison bi mu def mu nekk di monter en puissance bëgguñu ko bàyyi mu dellu ren nekk benn jour bu xamante ne boo xoolee mois d'avril bi ñu jógee nii rek euh, defoon na si interview di wax si Sénégal. temps yi dafa nekk si forme bu baax boo gisee ñu dafa nekk si forme bu baax boo xoolee conférence këpp boobu noonu mooy troisième coupe Europe bi après Ligue des champions Europa League dañ doon jàmmaarloo ak Nice bi ñu doon jàmmaarloo ak Nice moo nëbb jënt bi Thuram te Thuram boobu ñu ngi naan cinquante mille cinquante millions à soixante dix millions lay jar donc euh, match boobu dafa wane clairement ne il a le niveau il a un superbe niveau sax la ñuy wax parce que boo demee ba nëbb jour bu xam ne mën na jox soixante dix millions c'est pas rien jorul xeeb parce que souvent moom laay wax quoi ma ne euh, Didier Deschamps nee na mu yéen bokk na si ay critères am day xool yow grand rendez-vous yi maanaam match yu mag yi pour xam sa talent dëgg pour man la natt pour mën la convaincre France euh, jamono bii nag moom maa ko noonu si yàgg na toj de mais ba tey defuma ci moom vidéo mais dama doon xaar un match de référence surtout que surtout match boo xam ne naan tey ñu rey leen comme par exemple contre Nice nga xool il est capable de faire quelque chose mu lu baax baax. léegi damay ñëwaat si interview bi xamante ne amaloon na ko ak suñu confrère yu Wii Sport euh, en avril bi mujj maanaam weeru avril bi bi ñu jógee mu doon fa wax nag lu intéressant mu ne Sénégal euh, dëkkaam la c'est ay matcham yi lay seetaan dafay dem vacances chaque jour maintenant nag choisir agul dañ la bokk toog nekkagul si xelam quoi mu ne jàpp ne daal dans le futur euh, dina choisir dina choisir quoi parce loolu du mu nekk si xelam léegi nii nii nii Sénégal maintenant nag xam na Sénégal bu baax nax du toog du fi ñëw vacance nee chaque vacance day ñëw ba pare match Sénégal éliminatoire Coupe d'Afrique yooyu yëpp day jël temps sa match yëpp xam na équipe bi bu baax xam na Sénégal bu baax a baax nee na lu jot yomb rek nee na choix bi yàggatul ah choix bi yàggatul parce que dañuy dans le donc mbokk yi mu leen waxee ay qualité yu Andy Diouf je pense que man dégg def si moom découverte yàgg na yàgg na en deux mille vingt si je me trompe pas moom découverte euh, tey jii nii xam man boo leen wax souvent dama leen wax ne joueurs yi avant ñuy signé wala bu ñuy damay gis seen commentaire waxal un tel waxal un tel xam ne kooku ñu ma laaj def naa ci moom yàgg na yàgg na bu yàgg sax comme booy Habib Camara aussi tamit euh, def naa si moom lu yàgg Habib Diarra plutôt Andy Diouf aussi tamit dama teel a intéressé moom parce que dama liiroon benn article ñu ne euh, waareen boo ko ne am ci moom yaakaar xam waareen boo xoolee Ousmane Dembélé fa la jóge Ismaïla Sarr newoon na fa un bon moment donc maintenant bu ba jël ak kii Camavinga euh, moo tax ba ma gisee kii rek ma ne ñi waareen duñu duñu formé Comé duñu formé Thione autant pour moi duñu formé Thione donc ku génn euh, Kamavinga génn Ousmane Dembélé ñooñu buñ taxawee ne la joxañ baaraam ne kii nii man na rek boo étant un sénégalais da nga war a intéressé wu ci ay mbir moom nag toog na ren amul temps bi mu doon xaar mu dem baal mais saa baal moom moo koy toj xam nga donc ñu bëri ñu may la dandu dandu mais ku dem xool masti ci bu fekkee am na benn militaire boo boo gis c'est c'est c'est Abdou Diouf il est costaud am na doole footballam am na box box day day euh, xam na bon tempo mais en tout cas euh, manque natt surtout seen jàmmaloo comme ni ma waxee contre conférence parce que yeneen match yëpp résumé la mënoo wala nga dem xool ay statistiques yooyu nga nga mën a natt booy bi ci si lan la nekk ak euh, ban apport la mën a andi donc comme réflexion de préparer un autre équipe nationale du Sénégal man ci loolu laay xalaat jàpp a ne Aliou mu ngi ciy xalaat. donc tabax benn génération boo bi dix-neuf ans rek la am xaar nak euh nag Aliou Cissé dossier bi la fa la si mujje ndax dina convoqué ou pas mais ak lu si mën am rek comme information incha ñu dina leen ko andi football TV bokk yi mo nekkoon vidéo dem leen si yeneen plateforme yi ngeen doole ñu fofu accompagner ñu wax leen ba beneen si seen football TV.